vraiment euh, réaliser suñu projet bi. Mm-hmm. léegi pour par rapport euh, au soutien. aujourd'hui même bu may ñëw nii li ma tardel tuuti mooy dama nekkoon di signer la charte d'adhésion euh, de la coalition Diomaye Président mm. voilà si coalition Diomaye Président la ñu ñoom nga bëgg ñoom nga nar àndal en coalition présidentielle yi waaye ndax mën nañu xam ce qui motive cette alliance oui xam nga sa qui motive cette alliance c'est que ñun dafa am lu ñu tax a jóg man je suis pas un mouvement politique ñun on est un mouvement citoyen mhm. te boo xoolee ci objectif bi gën a mag ci suñu objectif yi mooy xeex contre injustice voilà te tey boo xoolee si eh, candidat yëpp kan moo nekk kaso Bassirou Diomaye fay dan moo ko fa yóbbu ñëpp xam nañu ko lu dul yoon mhm. et au-delà de ça je pense que c'est un peu le candidat de la rupture mhm. xam nga depuis 1960 le Sénégal a expérimenté beaucoup de personnes on nous disait que Macky Sall moom moo juddu après les indépendances, les indépendances et oui. que il pourrait changer mais on a vu que c'était le pire des présidents depuis 1960 ba tey donc c'est pire parce que xam nga Macky Sall euh, en fait c'est le débat va s'enliser bu ma fi. mais juste bëgg xam parce que y a eu des présidents avant lui et côté bilan on dit que Macky a un excellent bilan. c'est pas le bilan xam nga euh, ñun Sénégal euh, lu ñu gën a jox solo. Mhm. mooy doomu aadama te boo xoolee en douze ans Macky Sall dafa viol lu mu violé ci droit de l'homme moo ëpp lu Abdou Diouf Senghor ak Ablaye Wade. d'accord voilà si Macky Sall la ñu la ñu am pour la première fois un candidat ñu validé ko ba léegi mu ngi kasu loolu rek c'est pour moi c'est une réponse et au-delà de ça comme je vous dis on ne pourra pas revenir sur tout le programme ici. Mm-hmm. mais ku parcourir le programme de euh, du candidat du président Bassirou Diomaye Faye da ngay xam ne c'est ce qu'il nous faut. parce mm-hmm. que nous nous voulons <coughs> une, un Sénégal souverain. sur tous les plans que ce soit sur le plan politique alimentaire agricole et tout